Bonjour, comment ça va euh, mbokk yi man la El Hadj Rawane nekk président association Diourbel Santé di ADS. waaw doole sang bi li war ñu organiser ko mooy ñaari mbir la dañu nekk ci benn côté boo xam ne dafay dafa ëmb pandémie bi maanaam maanaam mag mi ëmb Sénégal. boo tax na ba xam ne équipe mobile bi mënuñu woon dem di def organiser ay dépistage de masse ay dons de sang de masse. ci loolu tamit ñu xof ñu seet tamit euh, kii mu ngi ñëw koor gi te koor gi kenn du mën kenn def mën a maye deret ci loolu ñun ah ñun ñun ndaw ADS yi dañu leen lëkkaloo ñu def une semaine boo xam ne dañu ko fas yéene organisé benn don de sang don de sang bi mardi une la war a commencé mais lundi Pâques la woon moo tax ñu yóbbu ba mardi mardi la ba tey li sam tey tey la war a jeex euh, doxalin bi nekk leen na mooy dañuy woo suñu xarit yi woo suñu am jàmm yi woo képp koo xamante ne rek war nga mën a maye ñu woo la fii nga ñëw boo dikkee nga may deret ci loolu tamit dinaa leeral ni dañ ko def de telle sorte que du am regroupement du am xubóol du am dara parce que dañ koo teree ci jamono ñu toll nii. semaine bi presque euh, def nañu en moyenne soixante-dix pour cent lañ joxe ñu ko xayma xayma ko ci juróom-ñaari fukk. lan lañ joxe am ci ay poste quoi jàngat bi kaw dina li suñu taxawaay moom mooy juste ñaax nit ñi xamul nit ñi lan mooy jàngoro bi ci loolu def nañ ay caravane de sensibilisation def nañ ay émission rajo ay émission télé surtout ci seen télé VFtv def def nañ benn émission bu am tamit ñu dikkaat tamit defaale benn don de sang a jàppale nit ñi nga dégg ñun suñ taxawaay moom moom daal conseil bi ngeen joxe mooy juste rek ñu sàmmonte ñu sàmmonte digle yi parce que loolu daal moom mooy conseil bu gën a gi digle ñoo ngi wax di ko waxaat di ko waxaat donc bu ñu ko sàmmonte war incha allah dina leen dimbale quoi ba ñu ba mën a mës ci Covid 19 bi Bonjour, c'est Baouna Niam, membre à l'association de Sabe. En fait, Dora Sabe, article de Mouni Bissot, le Boam Denis, c'est un homme don de soir booy def envers la population di Djilbel ñun di Covid 19 mbas bi gis nañ ni yëngu-yëngu yi daan am di faral di maye seen deret ak yooyu dafa xaw a wàññi ko lu bëri ndaxte gis nañ mesure yi état bi seen yi wax ñu toog seen kër am mëbët dox dox ay tànk jéego ñu ngi si ndox daal ña ñaax nit ñi ñëw moyen seen dara ndax koor gi ñëw ak gis nañu ñu ñàkkee bi lopitaan yi fan. activité bi ko déroulé woon ci semaine bii nii mooy depuis le 14 passé mardi dinañ ko amal juróomi bés bu tey ñu ngi toll si bilan 70 supports ñu ngi remercier tamit ñu fi jot a ñëw jot moyen seen dara ñi ko defagul tam ñu ngi leen di ñaax ñu mën a ñëw bu ñu ko yéegee rek lopitaan yi ñu ngi ubbi pour ñëpp loolu boo ñëwee mën nga dem dama ñëw pour maye dara dañ la sa groupe sànni yooyu yi ñu ay bakkan moom mooy euh, euh, banque de sang lañ wax ku wax banque wax wax lu koy suuxal et que banque de sang lu ko suuxal moom mooy deret naam ñu tey dinañ dinañ jeexal suñu don de sang bi ñu bi ñu war bi ñu war a fas yéene def. mais bés bu ko jeexalee banque de santé dina soxla dina soxla deret kon maa ngi ñaax nit ñi euh, ñu ñëw faral di ñëw fii di fas yéene maye deret